Sur ce point, il s'agit de l'arrestation qui est consécutive à la décision de condamnation par contumance. C'est clair. Alors, Ngouda, parce que euh, aujourd'hui, sans que je pour polémique et l'un na lool ci ci nit ñi expliquer est-ce que a euh, fi fin de mënul peut-être indi encore, si li nga xamante ne moom japonais c'est la fin euh, de la contumance, alors que nous fi ñu aujourd'hui rien n'a été anéanti. Wow, comme ça maître a fait une démonstration. Comme disent les Américains, j'apprécie. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que comme démonstration. c'est-à-dire que jël loi bi alors que droit pénal est le droit de la certitude. dès que la personne est arrêtée waxuñu sax une condition lañ ko arrêté xam nga ma ñëw wax na lu maître nena buñu jaawale Karim Khalifa Sall ak mais bien sûr ce sont des acteurs politiques tous des candidats à une élection présidentielle des candidats d'envergure représentatifs bi ci justice Mais bi ci top moy jaarul yoon léegi bu ci maître dans sa démonstration 307 mënul indi polémique xam nga nañu catégoriser qualifier nañu interpréter par des méthodes maître nee loi soo ko xam da ngay doon solo mais nañ ni namm juge et dans un état de droit la seule véritable interprétation de la loi qui s'impose à tous c'est celle faite par le juge parce qu'il a le pouvoir du dernier mot est-ce que l'Assemblée nationale ñoo def amnistie wala président def grâce bu booba maître dafay wax la jurisprudence française mais pourquoi waxul la jurisprudence sénégalaise en matière de contumace nit ki rey na nit ñu koy wër gisuñu ko ba jugé ko tej ko ñu ni dégg nañ ko fële dafa xiif dugg na ci restaurant bi sàcc plateau plateau ceeb ba ko jàppee bu ñu ñëwee ko jàpp sàcc lañ ko wala dañuy koy sénégalais aussi dama utiliser un langage ésotérique mënoon naa su ma à la faculté wala dara mais dañuy wax le simple dañ ni kii nga xamante ne dañ ko tuddee le max. moom ci papa nga xamante et puis le mot mon âme am origine mais dans son évolution aussi mu am yeneen yu ci bopp maître wax na origine je rappelle que le général de Gaulle a été condamné par contumance en 1940 le général de Gaulle et à la peine capitale nous, daw Angleterre nous confisquer tous ces biens par le régime du maréchal Pétain par l'histoire histoire il a fait l'appel du 18 juin c'est juste pour dire que donc voilà nit nous na donnons compte <laughs> ba pare di xeex de boo xamante maintenir quand même am na fu attention mënuñu ñëw rek ne ki def contumace de vous wu etc. non. waaw mais désobéissance non désobéissance. non je ne parle pas de désobéissance. je parle de la résistance. c'est différent dans le préambule de la constitution il y a la résistance à l'oppression moom lay jàngale. droit bu ñu def ci constitution bi rek war nañ ko invoquer sinon jarul ñu ko ci bit Et c'est supérieur aux lois pénales mooy fournir booy même booy jàngale constitution bi mooy fournir toutes les têtes de chapitre donc li ma bëgg veux wax c'est que... Ousmane Sonko li ko daloon ci jugement c'est l'article article L29 code électoral ngay dem la les personnes en état de contumace mënuñu nekk ci liste électorale lan mooy état de contumance jugé nañ la daan nañ la nekkoo fi ñu lay wër parce que bon, les jugement bi lan la ñuy wax fan lañ koy afficher dernier domicile bi ñu xam mooy maanaam nit ñi nga xamantene sax gisunu la sax dañu wara buñu wara def concourir à l'exercice de la justice suñu la tégué loxo muy ki dafa nekk en état de contumace manam ki mais mais lolu c'est illogique yow justice mu waa nit ki bu fekkee ni par exemple yow da nga nekk en état de contumace tay Ousmane Sonko tay bu deful won dara tay waa léegi ñëw ñu war koo jàpp waa c'est ça le problème légui kon pourquoi jappu ñuko donc en fait dañuy wax justice te xam nañ ni lu bëri dafa jeng dëng parce que nit ki mënoo koo condamné ba pare la condamnation ngay toog di xaar naan dama koy exécuté wala damay xaar wala nit ki dama koy poussé à la mu def leneen benn sens wala nga bàyyi nit ki condamné ko ba pare bàyyi ko muy dem nii wala dama koy bàyyi muy dem damay xalaat mën naa def leneen ma topp maanaam mun na rey nit mu leer na mun na rey yeneen nit nga damay xaar ba mu reyaat keneen wala damay xaar ba mu dem def leneen loo xamante ni sa moindre non non non nee naa droit c'est logique comme les mathématiques qualifier catégoriser c'est bon interpréter c'est bon mais il faut foo xam fa en droit pénal dama faut la l'habitude n'est pas c'est beaucoup de juristes qui ont les droits fondamentaux xam nga que lan dafa am les droits fondamentaux de procédure te Ousmane Sonko les droits fondamentaux de procédure yooyu la jaar boo vous wax naa la ko tey lan moo tax devant la justice maître mi ngi juriste vous ngi pourquoi les avocats se battent sur les questions de procédure Ousmane Sonko n'est plus en état de contumace. Son état de contumace est dépassé. Depuis que nous avons mu def acte de non acquiescement Quel mënatu la wax Ousmane Sonko tout ko en contumax c'est-à-dire que da nga wax interprétation bu article 307 beneen bi ci wax que ñan ñooy wax ni Ousmane Sonko est en état de contumace ah, mooy ñi mu jàkkaarloo woon les partis yi mu jàkkaarloo woon parce que le ministère public dépend du ministre de la justice. Mm-hmm. il y avait une partie aussi boo xamante ni Ousmane Sonko aussi jàkkaarloo woon nag ñoom ci procès boobu mais man gisuma benn juriste en tout cas ak ñiy jàngale droit ñu toog wax ni Ousmane Sonko est en état de contumace toujours léegi man nag dama jàpp ni droit lay jàngale aussi néew na nag ñu ma ciy weddi def nañu fii Khalifa Sall def procès am daan naa ñëw ci plateau yi ne état du Sénégal fu ñu dem ñu condamné leen mu dem am ci ñoom dëgg ñu def ko Karim Wade ma ne leen fu ñu dem ñu condamné leen ñu am ci ñoom dëgg ñu teg parrainage ma taxaw fii ni leen parrainage bii man dama ko daan jàng daan jàngale en Europe ni leen bu Sénégal bii baaxul tribunal boo xamante ni tribunal véritable la bu ñu fa demee dañuy condamné ñu dem cour de justice de la CEDEAO ñu ko ne du ay dañuy glorifier wala dara mais dañ ko bëgg parce que yoon la ñuy jàngale am ci passion mais aussi ñu gëm ak ak yelleef gis nga dama wax ni Ousmane Sonko ce n'est pas parce que dafa ñëw nit ñi di wax pour moom pour faral non c'est quelqu'un koo xam c'est un citoyen sénégalais mais il faut que les gens apprennent à respecter ses droits mënuñu ñëw nag depuis quelque temps procès bu am rek ñu ne est-ce que il est éligible wala il ne l'est plus loolu man pour man dafay une stratégie boo xam ne daf dans une anomalie démocratique maintenant en matière maintenant d'exercice des libertés ñaar moo am wax naa l'argument du droit doit permettre la primauté du droit dans un état de droit. l'argument de la force vous faites que moom la dit, bëgg vous tey la loi de la neex mais Ousmane Sonko man gisuma lu ko mën téré teree candidat à l'élection ah, ah, présidentielle. profane ah, yu mel ne ñun parce que ma ngi gis ne yaa ngi yaa leen di euh, xol di leen déglu religieusement monsieur monsieur le maire mm. li tubab nan ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément mais buñu duggé ci droit ñëpp dañuy rër faaw même ñom ci seen biir euh, duñu wax ben cadeau dañuy di diviser wu lolu lan la mëna jural askan wi aujourd'hui ku ci mel ne yow nekk un acteur peut-être politique euh, ci li nga xamné mom lañuy défé li nga xamné moy euh, termes juridiques nous en termes de constitution bu troisième mandat aujourd'hui également acte de radiation bi de nous par rapport ak ce le juriste mais d'abord de quel droit on parle parce que c'est la question de droit la j'ai comme impression qu'il y a plusieurs droits même pour les benn droit interprétation hein, c'est totalement différent le droit daf ma tellement amna ay jamono même dama demoon inscrit faculté droit pour def droit malheureusement j'ai pas terminé l'année parce que booy déggu nitu droit ni ñuy wax droit c'est tellement enrichissant et puis dafa am lu may def te xamna ni aussi patch le bon xamni kep képp ku nekk ci ñun war na ko mën a wala mu xam ci as parce que àq ak yelleefu doomu aadama doomu aadama bu nek amna patch bu mu war ci xam pour mën défendre bopam pour mën xam lay yoon ak la nga xam ni yoon da koy tere mu bañ ko def bu wax ñom ñaar je suis admiratif di leen déglu pour xol en fait ban interprétation lañ ciy jël maître l'a dit je pense que bu wax droit aussi il faut que ñu nek au-dessus des contingences partisanes

bi ñu tegee Khalifa Sall mais nous, amoon nañu ni Khalifa Sall waroon mën nekk candidat ba biñ condamné ñu dem cassation def tout ba moment où Khalifa Sall garder ses droits civiques pour être candidat c'est après des mois après l'élection lu ñu revenir même pour changer loi et ça veut dire quoi ça veut dire que parfois on n'a plus le droit Parfois, on fait prévaloir la force. En fait, il faut que nous nous soutenions. et des tax ma bien que profane là, tu droit mais je pense que les assises du droit s'imposent à notre pays surtout au niveau bu là. quel est le vrai droit parce que nous avons boroom xam-xam yi droit am na ñoo xam dañuy jàngale droit di def droit mais li ñuy def du droit am na ñoo xam xamuñu droit defuñu droit mais réew mi toll na foo xam ni dañuy itteewoo ñi xam droit di jëfe droit di wax droit di wax droit te que tu dois. je pense que l'on la sort soxla nous la ñu soxla. maître aujourd'hui beaucoup de Sénégalais parce que euh, ci rajo yi ci télé yi sur les plateaux euh, beaucoup de Sénégalais ou certains Sénégalais bokk dañu jàpp une justice dañ euh, pour faire des adversaires politiques yow nga un acteur beaucoup ci est-ce que.